ci ñu bëgg ay leeral ngir andi fi seeni tuut tànk ñu jàng ci internat wu Hikmatul Yawmi bi ci Thiès tey ñu fas leen yéene andil xikma bu amati solo tukkee ci ko am solo mooy kenn ci taalib yi àndoon ak sëriñ Touba te nekkoon ab xakim ku bari woon ma ñu koy wax sëriñ Malick Bassine si sëriñ Malick Bassine mbokkoon na ci xikma yam waxoon dafa waxoon ne ku la jaay yett jëlee ko yet jëndee ko yet mu ne ku la jaay ñetti mbir daal na ko jëndee ñetti mbir ba ci njëkk mu ne ku jaay xam-xam jëndee ko maandu ndax xam-xam boo àndul la ko maandu du teemo yàlla ku jaay alal jëndee ko doylu ndax alal ju àndul la ko doylu du tee sàcc ku juddu jëndee ko ngor ndax jur bu rafet du tee dem kaso loolu nag day wax ju am am solo joo xam ne nii ku nekk war na koo mën a setantal ngir nga mën koo jariñoo bu dee bu njëkk bi xam-xam moom jër tëjaay ah ndax xam-xam moom benn mu doon bu am njariñ buy jariñ nit ki nit ki mën koo jariñoo wala mu doon safaan bo buy lor nit ki nga xam du ci jariñu du ci jariña fala ilmu in lam yuxdi shaxsan lil huda fa innahu beneen bi ci desit muy alal alal moom ah, boo ko jaayee ko doylu du safe ndax doylu rekk am solo jamono jii nag day jamonoy alal joo xam ne ni nit ñi jàpp nañ ne lépp alal moo koy lijjanti dañuy dem ba borom alal sax bu waxee lum xamul sax ñu dëgg la ko balaa wax jaa daanu ne wax nga dëgg am na woykat bu bind loolu ne borom alal bu waxee lu dëgg sax gaa yi ko dañuy daal gaaw dëggal ko ne ko wax nga dëgg waaye nee na ki ñàkk bu waxee lu wér sax loo xam da caa teg bëtam moom dañ naa ko yow waxoo dëgg li ngay wax dara wérus daal ci teg ne ay ay dërëm de maanaam alal ci jamono jii ñu toll ci réew yépp nag moom la nit ñi di wutee respect aku màgg maanaam ngir ñu respecté la te lay màggal jàpp nañ ne àll rek moo ko mën a may ci jamono ji ñu toll moo tax mu ne innal ganiya isa takallama kaziban qaalu sadaqta wa ma nataqta muxala wa isa alfaqiru asaaba qaalu lam tusib wa kasabta wa kasabta yaxasa wa inna daraxima fi lmawaatini kullaha taksur rijala mahabatan wa jalala daal di wax ne alal nag ci jamono ji bu fekkee da nga mënta wax sax wala amoo fasaaxa wala soo làmmiñ daal wax daal yomb la nee na alal mën nga ci jënd ay waxkat yoo xam ne nii ay orateur la doon yu yoo xam ne nii la nga mënta wax lépp danañ la waxal lu kawe sa njort mu mel ni yaa ko wax te teew soo làmmiñ du yëngatu mën naa bañ a génn ci sa gémmiñ mu ne ba tey boo amee alal boo néewee doole wala sax néewoo doole waaye daal tàyyi ngaa xeex nee na mën ngaa wut ay xeexkat yoo xam ne ni ñoom lu jëm si ci sa kaw dafa jaar ci seen kaw ba noppi te loolu wer la moo tax na fahiya lisaanu liman araada fasaxatan waxya silaahu liman araada qitaala waaye bokk yi loolu lépp li ko ëpp solo mooy ak doylu ndax alal mënta jënd ñett alal mënta jënd gor sa doylu te doylu ga di lu wër ci moom eh, alal mënta jënd jaamu yàlla guñ la digal maanaam julli nga bañ a julli ngir nga joxe alal loolu alal mënu ko alal it mënta jënd bakkan buy rot bakkan bu toll ci rot lu alal bari bari bari bari bari mënu koo jënd ñetteel ba itam am na solo lool ku la jaay juddu jëndee ko ngor ndax juddu bu rafet du tee dem kaso loolu moom lu wér wér la te lépp lu dul tee dem kaso fii ci àdduna du tee dem sawara ëllëg dafa naa juddu bu rafet mi ngi yem ci mbokk ak yonante bi sallallahu alayhi sallam te am na ay mbokkam yoo xam ne ni ña nga sawara yonante yàlla nu salaam doomam ma nga sawara juddu bu rafet mënta weesu loolu kon nag li am solo dañ koy nawee nit mooy jikko ju rafet jikko rek am solo sëriñ Malick Bassine daal ca teg ne ah mën naa laa wax ko rafetub juddu kay koo xam ne kenn gënu koo rafetub juddu ñu ne kum doon mu ne mbaam mbaam léppam mbaam la baay ak yaay ak maam ak doom ak mbaam daal léppam mbaam la waaye foo ko fekk aw yatta nga ci wet gi ñu ne ko tax mu ne jikko jaa ñaaw kon jikko ju rafet moo am solo waaye du juddu bu rafet yooyu kon nañ ci bàyyi xel bu baax a baax.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 kon wuyu bi ñëw na gaañi leen toj ko bañ mën a jot ci wuyu bi ñëpp tiim ko ñii màcc ñii notari ñii jëmbaan ko ko féetewoo naa nit na ngeen seggal ko in uridu illa al islaaha ma stataxtu ma tawfiqi illa billah assalaamu aleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatu auzu billahi min asheytaani rajim bismillahi rahmani rahim